yoo xamante ne daal dinañu jot euh, ay lu ñuy woowee convention wala aide à la presse mhm. ñun gën koo xam rek ci aide à la presse comme que loolu mooy nom bi nga xam ne moom la ñuy mais li gën a attirer xëy na suñu ay suñu attention mooy dañ ci gis média yoo xamante ni daanaka ñun ñi nga xam ne ñoo di ay journaliste wala sénégalais lambda bi boo ko ci interpellé dina am problème pour wax la site bi mooy ban mhm. kañ la juddu lan la fi joxe comme information ak est-ce que c'est un site fiable parce que fii Sénégal dañ lay wax que après en fait nekkul loo xamante ni lu anormal la lu war a mën a nekk la ay média war koo mën a jot mais naka lañ ko war a mën a te je pense que nekk na loo xamante ni état daf ko de euh, structuré par exemple pour être euh, un rédacteur en chef dañ lay wax que il te faut nga am dix ans euh, d'expérience pour nga mën a nekk un rédacteur en chef waaye pour nga créer aussi li nga xamante ni moo di média aussi am na ay normes yoo xamante ni ci nga war a tënk donc ci aide à la presse aussi dañ lay wax da nga war a am culture fiscale. Mhm. non seulement nga am nombre d' yoo xamante ni ñoom ngay fay salaire chaque fin du mois am loo xamante ni. Euh, moom la ñuy woowee IPRES di ab cotisation boo xamante ne moom nga leen di war a jox chaque euh, fin du mois nga leen koy verser foofu noonu yëpp boo ko dajalee war ngaa mën a am li nga xamante ne moom la ñuy woowee à la à mais. et dañu xëy gis benn liste boo xamante ni tu te ñii ñaata at d'expérience la ñu def au Sénégal média yii nii fan lañu nekkoon ak euh, daal la ñu def ba war a mën a tax tey ñuy gagné li nga xamante ni moo di koppar gu mel parce que nag man li attiré sama attention. Mhm. Euh, je pense que mën nañ dugg sax ci liste bi. Mhm. parce que daal di énumérer quelque rek parce que dafa xaw a gudd donc euh, je pense que correct daal di nañu ko ci tudd correct euh, mooy le tribunal de pairs correct mel mi waaw. Mhm. jot na huit millions de francs CFA donc euh, lii si fonds d'appui et développement de la presse la. Mhm. ci gestion deux mille vingt trois donc euh, daal dinay jot euh, huit millions de francs CFA. beneen bi tàgg na attiré sama attention aussi mhm. bokk na ci Synpics mhm. bi nga xamante ni jamono ji Bamba Kassé moo koy diriger daal dinay jot moom 10 millions de francs CFA maanaam fukki millions ci suñu ay koppar moom Bamba sampoon nañ ko ko daal di ko koy jox moom mi nga xam ne moo ñi waa CJ CJRS yi mhm. convention des jeunes reporters ñoom mhm. tamit jot nañu euh, quinze millions de francs mhm. CFA union nationale des euh, journalistes du Sénégal UNPJ deux millions de francs CFA APS daal di jot trente cinq millions loolu moom xanaa mooy gros bi de francs CFA CESTI euh, daal di jot vingt cinq millions de francs CFA association des femme des médias xaw ma ngoone si la bokk wala mati mi am bokk ba de <laughs> waaw sama gars yi nii lañ bokkuñ ci daa association boobu daal dinay jot ci lu tolloog deux millions cinq cent de francs CFA alors euh, loolu mën nañ ko lim mais au la de ça aussi comme ni may wax rek liste bi dafa gudd maman mm-hmm. parce que lii attiré aussi sama attention mooy yenn médias yi nga xamante ni tey booy xool ñu ngi lay naan Ndoumbelane FM un million de francs CFA mm-hmm. <laughs> Ndoumbelane FM mm-hmm. <laughs> yaa ngi bàyyi xel j'ai bien entendu. <laughs> Ndoumbédane FM Aéro Lao FM. Mhm. Aéro Lao FM. ngeen bàyyi xëy na euh, xel ci tur bi. Mhm. ak lan moo est-ce que du amul euh, rapport ak ki nga xamante ne moo di musaa Bocar caam parce que mhm. nag j'ai l'impression que ay mbokkam lañu wala mbokku Macky Sall parce que man tur yi. mën nga def taxaw seetlu daal di koy xëy na jegelante wala toflantelu ko ak loolu. Aérolaw FM million de francs CFA. Brams FM. un million de francs CFA. Best FM. un million de francs CFA. Mm-hmm. Weli FM. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> loolu moo tax ma doon wax. <laughs> Weli mooy neex na daal maanaam lépp moo ji waa neex na FM. waaw après lu muy lu muy de jot na un million de francs CFA. jant bi FM. un million de francs CFA group média Al Mouridia FM 4 millions de francs CFA à Baga Lamba FM. Baga Lamba. <laughs> FM rajo la. des noms bizarres en tout rajo la jot na 1 million de francs CFA Diofior FM ah oui Diofior. ñaw jot na 1 million de francs CFA. Euh, Yaggaay FM jot na 1 million de francs CFA. Yaggaay waaw Yaggaay. léegi voix de voix de euh, Jégum FM. Jégum Jégum waa. jot na moom itamit cinq millions de francs CFA. Cosaan FM Cosaan FM xam naa yu fi yu fi dañuy fàttali. démb xëy na Cosaan. Mm-hmm. yàlla baax na jot na 5 millions de francs CFA. Mm-hmm. Euh, donc. Euh, Dagana FM Dagana FM. Mm mm-hmm. comme li ma la wax léegi nañu bàyyi xel tur yi. <laughs> parce que j'ai l'impression que dafay am. xëy na benn lien mhm. ak Moussa Bocar Thiam parce qu'il faut rappeler qu'en 2023 moom moo fi nekkoon ministre de la communication doon gérer aide à la presse bi donc euh, Foire FM aussi jot na un million de francs CFA xëy na yenn tuuti yi dina jafe si ñun pour ñu prononcer ko parce que mot tukulaar la. et tout day boo. waaw ah. voilà ah merci beaucoup Babacar. waaw ah, non tey am nañ fi benn pël. waaw am nañ fi interprète pël li attiré waat sama attention aussi bokk na si appui social maladie. accidenté bi ñu wax que euh, daal nañ koy joxe. ci lu tollook cinquante millions de francs CFA bëggoon naa xam nag ban journaliste moo fi accidenté. Mhm. wala ngoone bi mu nekkee woon ci terrain bi yëpp jar na laaj dañ ko cee faj mhm. yooyu yëpp ay question la yoo xam ne wala sax ab sa an bi mu perdre conscience peut-être am na lu mu ngoog ah, des de francs CFA liste bi dafa mhm. ah, euh, lii bokkoon na ci li nga xamante ni ñu ngi ko doon xaar mais bu ñu li may wax rek man bu ñu yam ci lii nii parce que baax na. Mhm. ñu def benn liste ne jox euh, média bi nii la tudd jox nañ ko temps ci ay koppar. Mhm. waaye dina baax tamit intéressant ci sénégalais yi ñu ne derrière sa média diw moo fa nekk ci sama gis-gis. Mhm. ñu ne diw moo fa nekk diw mooy kan. lan moo war a tax mu mën a créer média bi ak qu'est-ce qu'il a pour war a mériter ñu jox ko tant de million bu ñu ci paree yoon aussi def ci liggéeyam parce que nag euh, xaalis la goo xamante ni nag c'est l'argent du contribuable tey Euh, am na ñoo xamante ne nee nañ dañuy def reddition des comptes pour ñoom mais bu fekkee da nga créer sa benn entreprise fictive euh, boo xamante ne tey créer nga ko pour mën a am xaalis wala état moo la si accompagner. Mm. à rappeler aussi que ñu ci bëri période de campagne présidentielle bi lañ leen jox yenn yenn yenn. Euh, yenn appui yi nii. rawatina convention yi ma doon wax la dernière fois que dañ ko dagg ñeel ONAS. Mm-hmm. dañ leen créer woon seulement pour accompagner Amadou Ba si campagne électorale bi mais yenn sites yu ci bëri aussi dañ leen créer woon. wala ñu joxoon leen ay accompagnement ngir ñu mën a yàq Ousmane Sonko. Mhm. c'est l'homme Ousmane Sonko Adji Sarr. parce que ñoom yaakaarawuñu woon ni que mbir dossier bu ni mel waroon naa jeexee ci devant les tribunaux non non non dañu yaakaaroon ne ci internet bi. wala ci média yi dañ ko war a war a mën a lijjanti loolu yëpp bokk na tey di mën a expliquer yenn somme yi nga xamante ni moom dañuy dégg mais nag que justice soit faite que lumière soit faite tey ñu xam. ñan ñoo nekk derrière ces médias mais yoon aussi def ci liggéeyam. très bien loolu la ñuy xaarandi Babacar ginnaaw list bi nga xamante ni gis nañ ko tey ñun ñëpp mu nekk ay euh, médias yoo xamante ni jàpp nañ ni c'est fictif wul ñu daal di leen jox yenn somme yi yenn appui yoo xamante ni euh, peut-être ñu ngi laajte sax ñan ñoo nekk derrière euh, tout cela comme ni ko Salma waxee est-ce que tamit jotul ñu leeral waaye itam ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ci yooyee jamono ñoom it jotul ñu rendre compte. merci beaucoup Mame Fatou mm. euh, que ne lii c'est scandaleux mm. parce que dans un pays comme le Sénégal ñu ne la réew la boo xamante ni dañoo néew doole amuñu xaalis amuñu koppoor. Mm-hmm. tey nga gis ñu génnee la liste bi nga xamante ni mooy médias yi nga xamante ni financé nañ ko ci deux mille vingt trois bi fin deux mille vingt trois mm-hmm. deux mille vingt quatre. Mm-hmm. mooy période yi nga xamante ni préélectorale ak durant les élections présidentielles. ci liste bi maa ngi ñu bind si benn site. sinap deux cent vingt et un point com. non mais il faut qu'on soit sérieux sinab ah 221 point com léegi sinab 221 point com jéem naa recherché ba sooru man gisuma ko fenn mais gis naa aussi des sites yoo xam ne dañ leen financé alors que ne seen borom lim nañ seen ay bagages ni jaay nañ seen bagage existé suñu mm-hmm. nga financé leen xaalisu sénégalais yi au moment où tey de l'autre côté mm-hmm. donnet sénégalais yoo xam ne dañ doon liggéeyal état doon ñafe juste nga privé leen de salaire ñi nga yóbbu leen kaso parce que daa am fu ñu far mm-hmm. donc dañoo war a xoolaat Sénégal tey comme li nga wax euh, am na fu Salma jeexale léegi léegi foofu lay euh, rebondir mooy lan état bi dafa war a être transigeant ci lii nii. mooy lan ñu repérer képp koo xam nee nañu jël nañ benn fiftinu sénégalais financé ko ci presse bi. kan moo nekk derrière site. bu ñu xamee kan la ñu woo ko mu rendre compte da site baa ngi nii lii ak lii laa doon liggéey moo tax financé ma. bu nekkee ne kenn nekku ci nag ñu xool ka doon financé. kan la mu ne leen ñu ne ko lan moo tax financé kii te existé donc normalement ce qu'on depuis temps yëpp mooy lan état bi dafa a di bàyyi di leen teg pression wala di leen jéem a def ñuy def. nañu ci ànd ak fermeté gérer kaw presse bii nii ñu assainir ko. Sénégalais yi mën a ci leneen. Mhm, très bien loolu ñuy xaar Mati mu mel ni liste bi ñu mettre à nu arrangé wul ñi. ndax gis nañ keroog point de presse bi ministre Alioune Sall amal Babacar Fall daal di génn am na mu waxee ni ay secret fiscal la yoo xam ni waruñu ko woon révéler peut-être dañuy jàpp ni euh, fi nga xamante ni foofu la bokk daf ci amee ay mbir moo tax mu réagir nu ni mel. waaw parce que 40 pour cent dette fiscale bi léeg nga ñu ne kii nii groupe Futur Média moom moo ko amee état bi 40 pour cent donc. Euh, la la taille kii la part du lion quoi moom moom moo ko fa amee donc. Euh, Euh, ameel nga ma bor ma génn ne ma maman yoreel na ma bor loolu la moo ci nekk euh, données personnelles. Mm-hmm. c'est la question que surtout surtout yoreel boo xamante ni da nga topp di xataraayu ne duma la fay su ma la naree fay sax ma jaral na ma tëj sama entreprise. Mm-hmm. may tenir l'opinion nationale et internationale que ni nekk ma fii di la fitnaal wala di la bunduxataal mais effectivement da nga ma yoreel damay leeral askan que ni yow da nga ma yoreel xaalis ba pare bañ ma fay nga ne loolu mooy données personnelles. <laughs> benn <laughs> benn internet mu ngi naan <laughs> léegi toog muy dox FM mais wax na dëgg. fi ah bëri na chaîne mhm. xaw ma télé yi euh, chaîne YouTube ak euh, voilà des rajo ak mhm. kii site internet yoo xam ne euh, Salma sànq énuméré na leen fii nii. Mhm. mais jusqu'à preuve du contraire bu ñu fi defoon enquête ni xam nga instant instruire nañ IG pour mu mën a enquête. parce que autre boobu noonu ñu doon wax. ma 800 million yi fi ñu ko dépensé noonu autre boobu noonu. léegi ñu commencé xam autre fu mu waaye man seen pix. vingt millions. correct. correct vingt millions. Mhm. Senpix quinze millions. Mhm. Senpix dix millions xaw ma.